dama ndogu ak président de la république ma timis ma jiite ko gee ñu julli ba pare ma ko timis ji ci li nga biral ayatul kursi yu nga tari ak Quraysh ma firil ko ñaar yëpp ne ko lii lay signifier mais bi muy song ayatul kursi yu bi yokk naa sama teewlu ndax daf ma daloon ca Ablaye Wade ja bi ma ko teeroo mu jógee foofu ñëw permanence rek songu ayatul kursi yu ma ni yàlla na egg de sinon dinañ am problème mu tàmbali alaaw alaaw alaaw alaaw wóorul de mais Macky bosam dafa leer naññ ma ne ko Quraysh bii nga ñaareele ci la sa lettre de mission nekk falyabudu rabba haza albayt alladi atamahum min juu wa amanahum min xawf suñu boroom mi ñu sàkk dafa warloo ak ñun ñaari devoir nous nourrir contre la faim et nous rassurer contre la crainte ma ne ko mooy sa lettre de mission mooy lettre mission bépp chef de famille ñaar la yàlla euh, lonk ci sa ndodd ñu nga yilif yaa leen war a dundal ba du ñu xiif yaa leen war a aar ba du ñu jàpp ma ne ko fii ñu toog di reer reeru buur bu neex bii am na ñu reerul am na ñu dul ndekki suba am na ñu dul añ réew mi jàq nañu ndax ñépp jàpp nañ ni le bu Ousmane Sonko dee wuyu ji tribunal réew mi dana tàkk ma ne ko am naa ci xalaat mais du ma la wax xalaat dama koy jëfe ba pare bu doxee alhamdulilah bu doxul yaa moom sa décret bi ngay signé nga dàq ma mais da ngay nangu ma doxal te duma la wax li may doxal lan la mu ne ma d'accord wóolu naa la